li ñuy xaar tamit toujours si waa hygiène mooy désinfecté euh, une semaine avant la ñuy wax sax mais nee na moom bu doonay jot produit bi euh, euh, dix jours avant mën a teel a commencé liggéey bi teel a commencé liggéey bi muy dix litres de produit ak quatre-vingts litres de gasoil dix jours avant ñu ngi xaar tamit alors curage fosse septique yi yaakaar naa loolu maire bi dina ko jël en charge trente-cinq voyages lañu wax tant que 37 voyages bi mun na ko jël en charge euh, su ñuy wax wàllu opération set setal bi tamit UCG euh, dina leen accompagner dina leen gunge si wàllu woowu que ñu mën a jox leen matériel ay camion en particulier ànd ak maire bi matériel bi muy joxee ànd ak comité organisation bi pour ñu mën def set setal bi ñu jàpp set setal bi le 24 mai su wàllu courant donc ñu jàpp ñetti branchement provisoire ñaar HLM benn kër Soxna Bali ñu jàppale maire bi si éclairage électrique bi mais poteau yi daanu yëpp ñu taxawaatal leen ñu indi tamit groupe électrogène testé ko balaa ñu ko fay bàyyi waaw testé ko ba mu leer na ne liñ koy soxlaal dina ko mën a assuré balaa ñu ko fay bàyyi ñu def également Touba ak li ko yëpp ordre de stage am tamit équipe boo xam ne dañ koy teg équipe d' intervention HLM ak kër Soxna Bali waa eaux et forêt ñoom tam ñu ngi xaar ñoom autorisation pour de transport bois bi bois moor bi danaa ne dès que ñu def demande bi rek dañ ko diligenté pour mën a am autorisation bi si wàllu ndox ñu ngi xaar cinq citernes xam naa ne peut-être compter quatre wala trois cinq citernes ak ay bâche à pour que ñu mën a remplir bassin yi tamit également HLM li si des na bâche à ñu te ko kër soxna Bali euh, ba xam ne bu citerne yi ñëwee dinañ ko mën a feesal bàyyi ko fa am si tam tamit yoo xam ne dañuy gaare xaar donc muy HLM di mbaaru Sine Saalum di ko soxna Bali ak si tam yoo xam ne fa lay taxaw di xaar mais ñu fàttali rek vraiment forage yi jafe-jafe la dëgg yàlla temps de forage en panne fokk ndox mi manqué donc euh, ñu daal diligence euh, Maodo Rahmati ak jàppale offert xëy na vraiment jottali nañ ko kilifa yi pour que ñu mën a am rapidement te forage yi taxawaat ci liggéey bi mën a continuer. te sitkaat nii rek duñu mën a def liggéey bi si wàllu commerce tamit ni mu ko expliqué bu baax ñu ngi xaar donc seen taxawaay contrôle denrée si seen taxawaay approvisionnement si seen taxawaay également contrôle prix yi parce euh, que maîtriser ngeen bu baax sujet bi et day am espoir que dinañ ko remplir lu ngeen war ni ko waree wàllu communication donc ñu def lettre pour directeur général am couverture si wàllu wàllu wàllu wàllu RTS waaw cest di couverture nag du événement yi rek parfois mais même ay reportage ak yooyu yëpp yu ñu mën a def pour wax wax soxna si dundam ah taxawaayam si diine bi loolu yëpp dina si baax fi mu ne nii nit dëkk réew mi dañu laaj ay royukaay dañu soxla ay royukaay te yaakaar naa ne loolu jamono boobu mu mën na wax si dundam mu mën a nekk royukaay pour jigéenu Sénégal yëpp pour xale Sénégal yëpp ba si donc événement yi xam ne ñooy am si màggal bi muy màggal des petits fils wala conférence des ak également màggal gi si boppam cérémonie officielle bi lépp ñu mën ko couvrir donc euh, pour waa waa waa Sonatel moom ñu ngi xaar wifi ak ak ligne ADSL pour mën a couvrir événement donc euh, la ñu wax si wàllu logistique tamit noté nañ bu baax donc tente ñaari tente six cent mètres carrés waaw à la place des tribunes à la place des chaises ak euh, bâche yi peut-être la place au moins une partie chaise yi ak bâche yi ñu def euh, tente six cent mètres carrés équipé pour wàllu maire bi tamit ñu ngi leen di déglu surtout si éclairage bi seen wàll la léegi si voyage yi ngeen war a def pour vidange fosse septique yi si matériel set setal bi ak carburant bi ngeen war a indi mais également si produit yi ngeen war a def service d'hygiène ak arrêté boo xam ne mooy tere mooy tere charrette yi ñu circuler si ak si xam ne dana leen ko indiqué kon daal loolu daanaka sëñ bi mooy li xam ne moom lañ jàppoon. ñun fii tey nag di def CRD Laylatul Qadr ma ànd ak délégation bu jóge ci sëñ Mouhamadou Mahfouz ñu ngi doon saytu li xam ne moo jëm ci wàllu magal euh, bis bi nag dafay bis boo xam ne bis bu am solo la. ndax ni ñu koy faral di waxee rek guddi goo xam ne moo gën junni weer alxuraan ci boppam wax ko foog naa guddi gu toll noonu dem guddi melu ni soxna si tàndoon ko daa ci liggéeyal way juróom ba Serigne Touba daan ci wàcc ay kaamil yu bari daan ci def ay bernde daan ko ànd ak mboolem jullit yi def ko ay at yu bare bare bari ba woon ñu ginnaaw ren jii nag muy guddi goo xam ne bis boo xam ne mën nañ ne bi fi soxna si jóge ak léegi ban na ñaar fukki at wante itam mooy bi ñu njëkk def ginnaaw boo xam ne soxna baa Bali war nañu ginnaaw kon ci ñaar yooyu rek benn bu ci nekk tax na ba mu nekk bis boo xamante ne bii dafa war a wuute ak bis yi nga xam ne moo daan am moo tax mboolem disposition yoo xam ne war nañ koo jël ak administration bi ak maire bi ak taalibe yi ak famille bi ci boppam lu ci nekk lépp luñ ci daan def rek yokk nañ ko ba jàpp nañu ne buñ ci àggee bu soobee yàlla niñ ko séentoo danañ ko am noo xam dina kawe suñu njort mboolem liñ ci war a wax ci CRD bi wax nañ ko moo xam wàllu ndox la moo xam wàllu courant la moo xam wàllu assainissement la moo xam wàllu lu mën a doon rek bàyyi bàyyiwuñu dara sécurité bi aussi lu lu nekk loo xam ne lu am solo la eh, xañ na peut-être ci sécurité bi rek fa mënuñoo ñàkk wax ci li nga xam ne mooy accident yi accident yu bari yi ñuy ñaan nit ñi rek ñu def nag ndax autoroute bi seetlu nañ ne accident yi bari na ci trop te loolu xañ na li ko waral moo di nit ñi nit ñuy dawee xel yi bari na waaye itam gis nañ ne bari na oto yoo xam ne dañuy paan sax di gaare loolu aussi foog na jàpp nañ ne nekkul loo xam ne mbir mu mbir mu war a am la bu ñu sañoon daal ñëpp dana ñëw ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm ci seen njaboot